madame la maire Mariama Sarr ni Macky Sall taxawoo ci Benno Bokk Yaakaar bi au niveau national yow noonu nga géré Benno Bokk Yaakaar bi au niveau régional o niveau local de cette commune uuf nga ñëpp yaatal nga ñëpp boole nga ñëpp siisoo kenn boddoo kenn lépp am yaa ngi ko bokk ak doomu aadama yi moo tax ñëpp la bëgg li Macky di liggéey yow copie photocopie Macky nga ndax Macky dafa yaru dafa teey dafa am xam-xam dafa nangoo liggéey dafa néewi wax bari jëf yow yow yow yaa yow yaa jigéenu Macky Sall te wax na ko démb ci stade bi suñu xol dafa sedd ba ngay ànd ak Macky Sall du 2008 de du du du 2012 de man xam naa ci dara keroog ba ngay dem CIS di jàppale Macky Sall danga ma koo wax man mii sa xarit ne ma Fatou Bintou Anne su ma sañoon nga ñëw Kaolack Dakar politique damaa bëgg a jàppale président Macky Sall CIS nga nga nekk CIS. madame la maire comité électoral ru Coofak moom kenn du ko discuter parce que yàlla dafa def ne ne ñun bureau de vote yi nga xam ne ne tey jii fu ñuy jaar ñun ñëpp kenn ku su nekk ne ne e cent pour cent Aroko lañ koy gagné. damay fàttali rek alors euh, référendum bi 2016 dañoo amoon quatre bureaux de vote bureau de vote yooyu ñu gagné massivement. avec 581 voix contre 226. coof ak benn bopp la ñoom ñëpp kenn ku si nekk ne ne fii amul opposant fii ñëpp dégg la mu la wax de madame la maire Mariama Sarr Madame le maire, Madame le ministre, sama sœur Mariama Sarr maa ngi lay nuyu di la tatagal fii ci Medina Mbaba di gërëm waa Medina Mbaba yëpp sans exception en 2012 on avait une crise énergétique il n'y avait pas d'électricité au niveau du Sénégal il n'y avait même pas d'énergie au niveau du Sénégal neuf cent heures de coupure de courant moom bu mu ñëwee en l'espace de deux ans waxatuñ coupure de courant dañu dem sax bay jaay courant nga ñëw au niveau de l'éducation nga am l'université El Hadj Ibrahima Niass au niveau de la zone de de la région de Sine Saloum mu nekk une réalité tey tey campus bi ubbi na étudiants yi ñu ngi jàng commencé nañ jàng au niveau de l'université El Hadj Ibrahima Niass c'est une réalité maintenant au niveau du de Kaolack et ça c'est à saluer réalisation yi bëri na au niveau de la commune de Kaolack ku nekk xam na ne y a une avancée dans dans dans ce que la mairie est en train de faire parce que aussi nit buy def ñuy gis muy jéem ñuy gis il war encourager da war a féliciter da war a jàppale c'est que en train de faire madame asalaamaaleykum mbokk Medina Mbaba ñu ngi leen di nuyu sa tur sa sant defe naa ne wax ji jaratul guddal ndax tey ni ñu Medina Mbaba teertoo fii ñu ñëw fekk fi une mobilisation exceptionnelle ñu ne déet ñu fekk fi ay hôtesse d'accueil ñu ne déet ñu servir ñu ay ndox ay boissons kon dama ne fi ñu demagum yëpp gàcce ngaa laama waaye Medina Mbaba moo jëlagum premier te tey wax ya fa génn rafet na xel dal na ci fii ci Kaolack fii ci Medina Baye fii ci Medina Mbaba ak quartier yépp pour wane na rek Kaolack taxaw na pour delloo à son excellence njukkal bi njukkal bi nag mooy votel ko rek le 24 février mu am majorité écrasante boo ñëwee nag bi ngay jël marron bi am bopp fas bii fas di symbole force di symbole nobles sunu parti tànn ko ànd ak coalition benn Bokk Yaakaar ànd ak grande majorité présidentielle ñu xam ne nag force boobu la ñu nar àndal ak nobles boobu du ñu xuloo du xeex ndax fas bi moo ko laaj dañuy dem voter vote bu civilisé toog déglu sunu résultat jël sunu deuxième mandat teg ko ci loxo président Macky Kaolack asalaamaaleykum waa Kasabil asalaamaaleykum waa Kasnak. di wax ni tey euh, bésu màgg plus jeunes nag xamuñu jumelage bi am entre Kasnak ak en tout cas du temps unique. il y avait deux sous-sections. Kasnak et par une section qu'on appelait Kasnak kon ànd bi dafa yàgg. madame le maire. tey euh, encore une fois témoignage lay def. c' par rapport à l' du président de la république. jour boobu Sénégal yëpp naw nañ la. les réseaux sociaux ont témoigné à la minute près que madame le maire avait gagné le pari de la mobilité. Macky Sall ba muy wax ne ba mu toog. Bounkiling la gis si internet que le stade était plein en réalité ñi la toppoon ces réseaux sociaux comme Equivox très sérieux ñoo dawanoon à année sa entrée dans le stade wane donc que le stade était déjà plein ba Macky Sall gis ko donc li ñu fa fekkoon keroog xamoon na ne c'était la moitié de ce qu'il depuis la matinée Et ça, c'est important pour le leader. Ce jour-là, tribune présidentielle bi daanaka feesu loon sax mais ay kilifa yow ay collaborateurs am ñëw ñu téye leen si buntu ba te teguñu ko fen nag mais madame le maire comme à son habitude très près de ses collaborateurs gestu à droite gestu à gauche woo garde corps yi ne leen dem leen jëli Sidi Traoré dem leen jëli Lamine Cissé dem leen jëli Fatou Doudou Fall dem leen jëli dem leen jëli dem leen jëli ñu toog fu wet mais important ça di nga gis yeneen leader suñu ne faax fàtte nañ lekk seen gannaaw mais moom elle a voulu que ses collaborateurs qui travaillent nuit jour autour de ce projet toog si wetam madame merci pour ce cette attention que vous portez à l'endroit de vos collaborateurs. man ci violence bi laay wax suñu doom yi laa wax bu kenn déglu kaay leen sànni lakk bu kenn déglu kaay leen yàq am na koo xam ne sixième candidat mu ngi wër te réew mi li mu koy waree mooy kaay taal kaay leen yàq kaay leen ñun nag kenn du ko def duñ ko def loo suñuy doom képp ku ci jóg suba ba ngoon jot ah loo lu la ca fekk ëllëg xamal ne yow la Mariama le 24 moom fii lañ ko daan gañe parce que dama kasaas ko mos a gañe daal bii mooy raw ndax bii wax dëgg yàlla dafa mokk ñu ko remercier Souleymane Ndéné Ndiaye bi ñu rejoindre ndax ma xarit mu Macky Sall la mu ñëw ànd ak ñun fexeel ba jóg suba teel jël fas wi ak Macky Sall kenn dootu doonee ci bulletin boppi fas wi rek boppi fas wi rek di gañe rek maa ngi leen di gërëm di leen sant Madame la présidente du vrai comité électoral communal de Kaolack. meeting peut-être am na solo parce que dafay nekk lu am solo ci politique muy démonstration force mais li ëpp solo mooy le jour très tôt le matin. ñu mun a dem ci bureau de vote yi pour pour décourager nos quelques disons opposants nga xamante ni sax duñu am envie voter loolu nag je pense que on déjà la majorité li Kaolack mooy li président wax ñu fexe ba góorgóorlu waxuma la bokk ci dix premiers yi mais bokk ci deux wala trois premiers yi ci Sénégal yëpp je pense que région Kaolack war a def. asalaamaaleykum mbokku Kaas naag Kaasaville Tabaya ñu ngi leen di nuyu nuyu boo xam ne am na fu mu commencé mais amul fu mu yem di rafetlu fort mobilisation bi nga xam ne fekk dañ ko fii tey. mu nekk une mobilisation exceptionnelle comme les autres moyens de communication un moyen de sensibilisation je l'ai déjà une femme qui vote une femme qui vote c'est toute une famille qui vote et les femmes représentent plus de 52% de la population donc c'est la présence des femmes aujourd'hui à la marche de sensibilisation est activité qui va beaucoup contribuer à la victoire écrasante au soir du 24 février incha allahu rabbi teel a xëy bañ toog ba ngoon nga dem comme ni ko Amadou Diallo waxee teel a voté teel a jox à son excellence euh, la victoire qu'il nous demande te buñ ko ko joxee lu war la parce que def na ci Kaolack def ci Sénégal loo xam ne war nañ ko delloo njukkal te xam naa ne Kassaville du des ginnaaw Casamance du des ginnaaw Tamaya du des ginnaaw kon vive la coalition bokk Benno Bokk Yaakaar vive la grande majorité présidentielle vive le candidat Macky Sall et pour une victoire écrasante nous tous soyons engagés pour rendre au président à notre candidat la monnaie de sa pièce au soir du 24 février